léegi nag ñu daal di découvrir ndoo ensemble kenn moo laaxatu ci ginnaaw photo boobu xam ngeen ko Mado ah. photo bi yaa ngi ma doon wax sànq moom di gën a bëgg ci photo mi effectivement parce que franchement day refléter la beauté africaine mm-hmm. elle est raffinée et elle est super jolie ak ginnaaw lu ñu doon wax aussi cette dame de fer mm-hmm. waaye xoolal le sourire qu'elle incarne saa su ne foo tasee moom lan ngay njëkk a gis moom moo di sourire bi donc c'est mm-hmm. une photo vraiment que man j'adore personnellement maanaam daal gàcce ngalaama rek kii daal yokkute rek moom laa yokk ba yëg ko alors yéen ñi nga xamante ni yéen yéen ci euh, doxantu ci page Facebook bi wax naa leen on se lassera jamais de vous dire merci on se lassera lassera jamais de remercier leen bu baax a baax a baax ci li nga xamante ne moom ngeen di doxantu ci page bi di ko fa bind mhm. alors euh, Bisik nag daf ciy jàpp Bisik nee na à chaque fois dix premières personnes yi daf leen di jox li nga xamante ni mooy bon d'ouverture de compte ci banque bi mhm. ndax ñu ñëw denc fa seen xaalis ñu mën di leen lebal di leen di gunge ba réalisation wu seen projet ba pare am nañ pak yu bees comme bu ci mel ni taw féex am na pak yu mhm. bëri yoo xamante ni dañ koy euh, proposer Sénégalais yi pour ñuy gën a mën a ñëw ci banque bi banque bi seen banque la yéen a ko alors ñu daadi di jàll ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo euh, ñoom ñoo participer. Mhm. ñoom ñoo def seen i commentaire waaw alo ki nga xamante ni moom moo njëkk Mado moom mooy Coquelin. Mhm. wala Coquelin moom loolu la bind. Mhm. Coquelin Julien Ngam moom nee na Fama ki Aminata Touré la. ki ci topp ki ci topp nag Fama mi ngi tudd Adam Bébé Niang moom nag li mu bind c'est très simple nee na kii Mimi Touré la xaritu Kouthia. ki ci topp tudd Baye Cheikh moom nee na kii xaritu Kouthia la la Mimi Touré. waaw ki nga xamante ne moom moo ci topp nag Fama du kenn ku la maam Sambay Sall dena mhm. kii Mimi Touré la ki nga xamante ni moom moo ci topp mu ngi tudd euh, Néné saa alors nee na kii Mimi Touré la kay Abdoulaye Niang moom li mu ci wax lu leer la nee pour moi c'est madame Mimi